xamante ni moo am ba des sàll dafa bëri nag ay parti politique yoo xam ne boo ci xasee ba bokk maanaam dafa am nag fu ñu lay xooloo ak fu ñu lay jaarloo maanaam ñàkk a par parloo daal dafay nekk loo xam ne lu jafe lay doon yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu nag am na yenn préfet yoo xam ne jamono ji seen doxalin daat nay tey xel ndax nag lii nga xamante ni moo xew ci diiwaanu Mbuur Ousmane Sonko ak tur na nemmeeku boobu nga xam ne maanaam préfet nag moo ko doon jéem a tere naan trouble à l'ordre a lay gis nga yi nga xam ne moom la ñu génn bëri na ci ay liste ni ay préfet ko nii lan lañoo ñoo ko invalidé mën na la gis nga coalition Aar Sénégal ñoom Thierno Alassane Sall bi ñu fi demee ci diwaanu Tamba doon ak séddale li nga xam ne mooy ay flyers maanaam préfet moo génn daan leen koy tere doxalinu préfet yi ak opposition bi loole moo nekk loo xam ne tey na war génn xeetu doy war goo xamante nii war nañu koo lijjanti Sud Quotidien mooy waxaat yéen kaay gii di Vox Populi xëy di ñu xibaar naan ñu nemmee ko tuur bi nga xamante ni moom la njiitul Pastef di Ousmane Sonko nag daal di dora ak coow li nga xamante ni moo ci jota xewa journaliste journaliste yi nga xam ne ñoo nekk ci quotidien Vox Populi ñoom nag laaj nañu yenn sénégalais yi ne leen lan ngeen xam ci usman Sonko aw doxalinam ak nag bunduxataal gi muy wax ne dañu koy bunduxataal mën na lay gis nga journaliste yi nga xamante ni ñoo nekk ci journal bii di Vox Populi ku ñuy wax Soxna Dia di étudiante moom la ñu njëkk laaj nee na nag Ousmane Sonko jamono ji bu nekkee ci xolu sénégalais yi Macky Sall moo tax ndax nag bunduxataal gi nga xamante ni moom lañu koy bunduxataal loolee moo jaaduwul te nag loolee moo tax askanu Sénégal daal di koy bëgg mën na lay gis nga journaliste yi Vox Populi laajaat keneen ko xam ne ab jàng jàngalekat la ñu fekk ko ci ab bus moom nag la mu xam le nee ne Ousmane Sonko am na sañ-sañ mën a la gis nga dem wëri seeta ay militant ma te nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi dañu ko war a am na beneen juriste boo xamante ni ci journal bii di Vox Populi nee na nag tere Ousmane Sonko ab tournée ma loole nag mooy jéem ko xañ ay àqam ak ay yelleefam ay droit am ak ay liberté ma te nag Ousmane Sonko du n'importe qui ci réew mi parti politique la jiite am na a la gis nga def tournée naka te 2012 def na ko ci réew mi Abdoulaye Wade bàyyi woon ko ci ba tey ci biir journal bi di Walf Fadjri Mamadou Lamine Diante moom nag nee na Macky Sall ci boppam moo war a xam ne Sénégal nekkul ab royaume jimbóor yi yéen a kaay la ko di jen nee na tey la tey tey la tey ca diwaanu Mbuura ma ne la capitalu Petite Côte bii di Mbuur nee ma commune Mbuura tey jii la foo Ousmane Sonko di dem journal lu Madiambal Diagne bii de la ko di jen nee na soo mel ni état de siège policiers yi ak gendarmes yi ma ne la ñoo ngi takku ba dëgër yor ay ngàndaay tey jële fa Ousmane Sonko di dema yéene kaay gii di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu nag neexul ba neexul waaye njiitu réew mi di président sa Sall jamono ji Macky ma ngi si ay jafe-jafe ndax nag ñi nga xam na ñooy ay ñoñam mën a la gis nga ñi nekk ci biir APR ñoo frustré ba maara day taali andi la Aminata yokk ci Abdoulaye Diouf Sarr ak Mary Teuw Niane ma la gis nga ñett ñii seeni mbir doy na waar de te nag Abdoulaye Diouf Sarr jamono taxawal li nga xam ne mooy ab mouvement te nag Aminata Touré ak Mary Teuw Niane ñëpp xam nañ ne ñoom jamono ci àndu ñu ci troisième candidature bu président Macky Sall yéene kaay gi di Vox Populi nag nee na sagara ngay xëy njaw di wéy di desu xam na ci na kër gii di o liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk CNO dañoo mer ba maara day taale mën na dem nañ ci ab gerew de yéene kaay gi di Le Quotidien nee na tamit liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk ci secteur primaire bi nee ma ñiy liggéeyee ci ministère de la pêche ak ñiy liggéeyee ci ministère de l'élevage ak ñiy liggéeyee ci ministère de l'agriculture mën na la ñoo ngi ci ab gerew a ñaari fan yéene gi di Réveil Quotidien xëy ñu xibaar naan ñu Tahirou Sarr homme d'affaires bi tudd nañ ko nag ci lu jëm ci wàllum escroquerie foncière nee nañu encaissé na lu toll ci juróom-ñaar ciy milliards ma ne la ki yor porte parole njabootu ñi nga xam ne ñoo ci loru moo ko xam la ci biir journal bi yéene kaay gi di Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñoo am na ñaari tiktokora yoo xamante ni démb àtte nañu leen ci tribunalum Dakar dañu leen a mandat woon dépôt juróom benn fan ci weeru octobre waa ñii moom lan la ñu def journal bii di Rewmi Quotidien nee na ñaari tiktokor yi nag kenn ki liw lañ koy wax kenn ki Prince Jackson ñaar ñii ñii dañu doon saaga Thione Seck di saaga Wally Seck di saaga Diaga di saaga Seydina Seck ñu daal leen di porte plainte ñu mandat woon leen dëpp juróom-benn fan ci weeru octobre démb la ñu leen doon atte waaye nag attekat bi tëj na leen lu toll si juróom-benn weer yu ñu tëdd yéen kaay gi nag nee na li faramaare nag bi ñu ko laajee moom nee na fan su Wally la woon waaye dafa wër Wally ba sonn munu koo gis loolee moo tax mu mer ko saaga yéen kaay gi di libération nee na giraawaali gu rëy moo am ci diwaanu Matam dafa am koo xam ne moo faray jabarama ndax nag jabar ji daf ko man divorcé damay divorcé doon jël ay bagage sama mën na la waa ji jël balu fetal dóoru ko mu sedd guyu pistolet la génne ba pare nag daal di daw waaye gendarmerie bu wuru suguy teg na ko loxo yéen i kaay gi di Stades nee na Ballon d'Or France Football Benzema daat na koy jëla journal bii sunu làmb ñu xëy fekk fa Mbaye Diallo mi nga xam ne mooy njiitul association entraîneur yi yëngatu ci wàllum làmb moom nag nee na bi nga xam ne moo war a dox diggante Siteu ak Papa Sow du nekk combat boo xam ne bu yomb lay doon te Siteu bi il faut mu xeex ak